démb dikkut woon waaye naka tey dikk na monsieur le maire bu goxu ku moom la ma adressé monsieur le maire bu Guédiawaye naka yow gi. yow gaa ngi nii la maire. da <laughs> ngay tey. da nga noo démb damaa kenn. te xam nga ne man ngay gis weer noonu rek Sénégalais dañ léegi ñi xamuloo xam nañ ko tey. <laughs> garaawul seetaan nañ te xam nañ ne ñëw. non non garaawul man xam naa ne man nga bëgg a weer mais. <laughs> mukk sañu ma ko sax. naka gox ba. gox ba nga fan. Euh, démb fan la woon noppal. Mm. wala nekkoon ci ay yitte. waaw. Hmm? non démb du ma fu ma dem. nekkoon ci yitte géejaay. gars yi dañ naan kon day day daw day daw jàng. Ah. bàyyi noonu rek. kon ñu bàyyi noonu. non garaawul bàyyi noonu problème <laughs> non garaawul amul problème. gis naa ne ah. may def. non def ma dara dama doon laajte rek. waaw nuyul femme femme kii euh, épouse douanier yi. cité des ah, douanes waaw soxnay douanier yi. voilà ñoom madame Dieng ak ñoom madame Thiam. ak ñoom madame soxnay douanier yi ñoom ñëpp waaye soxnay douanier yi madame Dieng madame Kassé madame Thiam. noonu la ah. leen nuyu baax. baax a baax waaw njabootu njegeen gis a Thiès. waaw ñu ngi koy nuyu wér. ñu leen nuyu soxna ñu ngi koy nuyu. waaw bu baax nag. waaw di nuyu euh, sama papa ji Père Baye Dissé. waaw waaw ñu ngi baax ñu ngi koy tey nag tey euh, euh, tey dañuy profité di jaale waale père Cora Fall moom ah. euh, kii wam dafa gaañu magam affaire inna dafa am sëram bu jigéen may sër bu góor daa am sëram sëram moo gaañu waaw sëram sëram moo gaañu benn sër ah. moo gaañu eh, donc ñu profité di ko di ko si jaale di fàttaliku tey ji tam bés ni ki tey la maître Mbaye Jacques Diop laa xoon moo am deux ans daanaan li tey la fi jóge woon waaw mbaa ma dikkee mais fàttali ko bu ñu fay dem di jaale ji. wallaay ndeysaan. mbooloo mu takku. Ah, mm-hmm, at yi gaaw yàlla baax na yàlla baax na yàlla na suuf ko. ma Malick ah, ah, moom garaaw. ah. ah. dernier <laughs> ñëw. ne woon naa da ko jóguwaale. mu ne maanaam dafa am doom bu jigéen. am na doom bu jigéen. waa léegi nga jagalaay et eh, doom bu jigéen xewal la nag. waaw ah. waaw yàlla dundaam da yàq bàyyi. wallaay wallaay bettu ma woon. waaw ndax lan. bettu de. dab bi dëdd gi yëpp. ah Malick Gadiaga bu tawee du ñëw. sedd bi bu duggee du ñëw. Eh. tàngoor bi daal nga ko fi gis. kase. ma xam ne kii. am na lu mu laax Malick Gadiaga daal ku bëgg mbàgge la. naa ne lii ci mujj. ah sunu monteur international nee na. doom ji ah, soxna Sane. kañ la kañ la xanaa la démb. la altine. bis bu rëy la bis bu si altine. ah dimanche dégg nga loolu dégg nga loolu. xam nga programme nag mu bëgg koo yóbbuwaat. lay def Medina. Mhm. demoon naa takk ba. kon kay tuuti borom dem fan lañ koy defee Medina. ah tamit ñoo ngi fa. Medina la. ak a jógee. kii sëy na nee na kër soxna si nee na kër soxna si la def affaire bi. Malick si yow la di xool. baax na <laughs> jaajëf léegi. <laughs> yéen kaay groupe des médias. dëkk bi yëngu na de ah. yëngu na <laughs> Farawaat di ñaag Naarawaat di ñaag. alkaali Massamba. non non man léegi maa ngi tonton. ndax la non damay transmettre. ah déedéet na non non non damay dem. déedéet na ko damay dem. moom kay. yow dèjà beige beige marron li nga ci am bariwul. dinaa wut ay yére de. laalaay sa utal ko. dinaa woo Mame Mbaye ay woo. sama xarit boobu kon Mame Mbaye mu ay beige marron ay beige marron waaw. waaw moom pour ñi ay nit yu ma ko wutal. Ah. Mor moom a ngi fi. wala Aliou Guèye. wala bi. nu tudd. Ah, kii maître wax nga dëgg naa leen wax ñu utal ma ay yére marron. non waaj dafa ay. non ay na nañ ko ko nangul quoi nañ nangul rek ne Macky ay na. non ay na ay li ñu naan jóg leen ñu def dungu. <laughs> mbir mi jar na ko. nee naa dungu non monsieur le maire. <laughs> sabula ba njuree jàmm non lii non lii nekkatul jàmm. yàlla baax na. mais ce que lii neen la. parti yëpp ni <laughs> waaye bii. non non non monsieur le maire lii lii daal lii lii nekkatul neen moom. surtout bii sax. PDS ñun nga xam ne moom tay tay waroon nekk suñu kii bi permanence ngeen wax tay lañ doon kii euh, war a lancer lancement parrainage waa léegi ko leen di parrainé kon dematuma bàyyi naa bàyyi ngeen def ñaari parrainage rek non non non bàyyi naa bàyyi naa liir bi am ña am ñaari bàyyi damay bi li ma doon wax laay def sax j'ai été reçu par un président généreux <laughs> vraiment eh. un travailleur <laughs> vu son engagement sa détermination président war consulter notre base <laughs> nous avons alors j'ai <laughs> eh, déclaration bi bu leen di jël c'est pas encore officiel. parce que après nañu waxtaan ak xool du dem. il faut il faut ñu waxtaane ko yàlla baax na. opposition dafa dem. non bàyyi naa nañ bàyyi opo dañ jëlee de xiif dañ ne rey de ñu ne ma. ay da ngay dem yow ñeme ngaa bàyyi gëm sa bopp yow. <laughs> ba sëñ man de man de man de non man daal léegi xam na la def bàyyil man ma grand parti. grand parti nga dem non non dem naa. man kay bis ni ki tey dinaa gàkku mu wutal ma ay rouge blanc mu nekk ay Mengo. rouge <laughs> blanc. non man ci la léegi man dem naa grand parti saa yi. Saër. non grave après nañ ko waxtaan. Ah, su ñun suñu parti bi tas na. ko waxtaan. lii xew dee ma nii. non non Saër. non kee nee na du moom. non non non Saër bàyyi naa. nee na du moom. waaw te du man maa ko na nag te du man maa kër gi du yaayoo lépp soxal wàllu eh, waa léegi maa nekk socialiste man léegi maa far ci gàkku. waa léegi bàyyi naa. waa léegi te du yow yaa sa bopp waa léegi man maa nekk. xanaa ku nekk ku la neex signé waaw waaye ku ne ku la neex si ñam waaye lépp dañ koy waxtaanee di attaqué ay Modou ak ay Pape Diouf fooy kan ndax ñoo signé pare ne Macky du ñu ay citoyen ak ku neex signé ku ne a la neex signé waaw léegi man maay signé gàkku man léegi man maa ko signé man ko génn gi nga nii waaw léegi man te du man maa bokkoon te du maa bokkoon PDS waaye léegi maa bàyyi te du kii mi ngi nii gëm sa bopp waxoo ko dara yow yaa ngi nii affaire kii gëmul <laughs> ah monsieur le maire affaire ngeen ma sa ne sa xaw dafa sol noir. <laughs> léegi léegi man maa dem grand parti. <laughs> xanaa léegi nit ki amatul dara raw neex dama lay laaj. kon da nga dem léegi man maa dem grand ndànk man. man tey laa dem tey mardi man tey laa dem. nee naa bu leen ko jël c'est pas encore officiel. après nañ ko waxtaanewaat. tribune a kaay ñëw ak ñun ci. lu <laughs> mu wax. laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah maître Madické Niang daal deful dara lu dul. Hmm. proposer à plan bu Karim Wade naree cóol ba nara cóol na jéem wut kenn indi teg ñëw renfort Ablaye Wade xotti ma dikkee <laughs> rasulaay ma dikkee ñaa bu doon fëy nii la ko Ablaye def te maam maam nag moom maam maam maam léppam dooleel déggoo ma de déggoo ma de mm. xiis mbac xiis mm. xiis mbac bàyyee si kii gi oho <laughs> moom la ko def siit ka tujee nañu maître Abdoulaye Wade tuumaal na maître Madické. dégg nga loolu mais maître Madické tam teggi na ay tuuma. moom. waaw parce que Abdoulaye Wade li mu bind ci leetaram bi mooy maître Madické bëgg-bëggu Macky Sall fa la Madické ne. Ah. déggoo ma de Macky Sall a voulu Macky Sall li mu mës a bëgg moo ñu changer candidat notre choix sur Karim. te loolu parti bi nee na du ci dal tey du ci dal ëllëg y a pas de plan B. maam dañaa ni bañ naa la moom. plan B moo dul am fii ci réew mi. maam yaa ni bañ naa la suñu candidat ñu waa PDS. wala rek Ablaye wax de man moom bokkatuma <laughs> moom léegi moom dem naa grand parti léegi. <laughs> dem nga grand parti <laughs> yàgg na dégg dégg. nee na ñin waa PDS. amuñu plan B amuñu plan C amuñu Z amuñu benn plan rek. rek mooy Meïssa Wade point léegi ma dikkee nag waaye bàkk na njàkk. <laughs> du ma wax waaw waaw dégg nee na njortes naa ne nag. Hmm. dut ba la indi. ne man dikke mënta am ndam fa nga xam ne foofee la ñeneen ña la je. Ah. maanaam ku nekk ko plan. <laughs> kon baax na. ku nekk ko plan. kon baax na. ci kanam réew mi quotidien nañu Abdoulaye Wade ubbi na safara sa sa kaw ma dikke hmm. waaye walaay ma dikke wax na ko lu leer moomet lu mel ni mi di non nee na ko giñ naa ko ci yàlla giñ ko ci xaadimu rasul mi ñu bokk di Serigne Touba ne musuma laa wor te duma la wor mu lenn kay xëj na falaa defee njuum de man ma dikke maa gis sama parti bi riir wutali ab miir impasse da jëpp waaw bu ca dalee mbëkku mhm. ma bëgg koo sowe ba tax ma bind lettre Abdoulaye Wade le trois septembre pour wax ko ne bu ñu yàlla naree nattu ba nar ñoo nattu beneen Karim bàyyil ma doon bee loolu moo ko wax waaw kay waay nee na lii de xëj na mooy njuumteem hmm. <laughs> moom ma di wax waaw <laughs> proposé boppam plan <laughs> kase maam nee na mbugtu ci daal Abdoulaye Wade ne ma dikkee paaka la ko jam Eh, eh maam mer na nag. Ah, maam nee eh, eh, na maam tam lan maam nga na ah, maam yemu na. te da nit ci conférence. non maam mer na. ko. erreur ndaw. <laughs> Aliou la boole. la boole Oustaz Alioune Sall Sud FM ak Oustaz Iran Ndaw la maam boole nee na yàlla dinaa de te yàlla dëgg la bëgg de. alayhi salaam bi ak min la waxal ma dikk. yéen a ñeneen wax wax leen ci ñaari doomu baay yii de danañu xeexaat de. kan kan Khalifa Sall ak Macky Sall seen xeex bu jeexagul. ko vingt quatre heures ñëw ak ñun ci. Mhm. suuf si yëngu si am PDS. waaw yëngu na de. séisme la de. laa ilaha illallah. Ablaye Wade nee na du am plan B. Macky Sall daañu wëñ loxoom ba mu nangul ñu suñu mbër mi ñu samp di Karim. ah waa lii mooy lan. waa ñu ngi xool. tonton libération yéen a kaay ñëw ak ñun ci. lettre bi ma dikkee bind Abdoulaye Wade te mu waroon coow. Mhm. libération yéen a kaay. waa mais déggal li Ablaye wax. lu mu ci wax. mon fils ou le chaos. waaw loolu mooy lan tamit nag waaw waaw loolu waaw léegi waaw léegi c'est maam nag yenn saa yi. di dugg ci ay tineen. man daal man xoolal man daal arrêté naa man man. non non doo dee déedéet déedéet non non. c'est que sama waaw sama doom mu ne sama doom wala lan. non man bàyyi naa ko man dem naa quoi ah. bon man dem non bii moo koy yeggali <laughs> mu ne sama doom. non man bàyyi naa waay. bu dul sama doom. te parti mën nañu ko wax PDS waat bi. parti mën na sant am sens. non bi il faut que non yeneen journaux léegi léegi non non parce que. bu dul sama doon kenn. nañ xoolaat wax ji rek ni mu ko rafetalee. nañ xool ni ah! mën day tey laa jommi lii dee nag mooy tasbir mon fils ou le chaos waaw <laughs> waaw waaw waaw léegi buur bu décidé nag ne Karim moom du bokk nag léegi nan lay demee kaw de ah! <laughs> tey laa jaaxle ah! man daal wee Serigne El Walid Diop li tax mu teel a <laughs> a daaw bàyyi bu yàgg comme da bokkul ci bokkul ci doom yi ku gisoo léegi sama écouteur yi sa rouge balaa la léegi kay grand parti rek xaaral léegi moom léegi moom rouge balaa xaaral man damay ñëw téléphoné gàkku sax ni ko pour mu wutal ma ay ñu jox la ay chemise yu blanche ak ay costume yu xonk tur. mu ne. taabal lan taabal yaa ngi nii. barke Rasulullah. naayam ko saytaane taabal yaa ngi nii. wax nga dëgg sax. lekk rouge blanc for. ay ah? non rek. lekk rouge rouge blanc. rek dégg mu ne. ndekete avant na Birahim Thiombane di bind lettre bi. Mhm. ca démb ja. ndekete maître Madické Niang dafa bind lettre Abdoulaye Wade. moom it déggoo ma de. da koo bind lettre. <laughs> allahu akbar xamal ko ne gis nga candidature Ablaye Wade bi candidature Karim bi Karim Wade wallaay ay léeboon lippoon la mënul ne mm-hmm. mënul ne rek bàyyil ma doon plan B Karim Wade mer moom it Karim a yuuxu de ne wor ko <laughs> tamit kasa waa tamit ërtël bàyyam ak killi ko déggoo ma de déggoo de. Mm-hmm. mu ërtal baay bi. baay bi réagir. baay bi réagir. deret dafa fort. deret dafa fort te. war nañoo bàyyi xel démb de. Mm-hmm. Abdoulaye Wade bi mu ñàkkee nguur gi de ma dikkee ko fat wax fa dëgg neex yàlla. ma dikkee koy fat biir kër. fàtte xaju bi ko bind. Karim Wade bu amee grâce. Mm-hmm. ba Macky baal ko ginnaaw yàlla ma dikkee. ma dikkee. ma dikkee de. moo ca dox. fàtte xaju bi de. le quotidien yéen a kaay nañu Abdoulaye Wade day koñe na de. Mm-hmm. ma dikkee nag moom tontu na waaye xam naa tontu léegi. tontu taalibe tontu taalibe. tontu taalibe la nee na ko je jure devant Dieu et Khadim Rasoul. Mm-hmm. que je n'ai jamais trahi maître Abdoulaye Wade. tontu taalibe mos koo war. les écoles yéen kaay ñëw ak ñun ci Abdoulaye Wade bi nga xam ne day bomb la yëkkati dóor ko ci kaw tey daal journaux yëpp ma dikkee la. waaye les écoles it ñëw naa ak ñun tey ci mbir. mu di. Barthélemy Dias la trent la war a génn. waaw bii ñu jël procès en appel bi yóbbu ko le 26. lii loolu. moo jaaxal ñëpp yow ñeenti fan balaa ngaa génn ñu bëgg laa yóbbuwaat tribunal waaye yow monsieur le maire loolu jaaxalu la. ah moo tax ay avocat ak ay jegeñaaleem na ñi jommi nañu. <laughs> réew mi daal na doo yëngu. yow bàyyi ba ñeenti fan des ci pour waa ji génn rek nga bëgg ko yóbbuwaat tribunal. tey waa ñu ana ñu nar. <laughs> yàlla baax na. ah waaw yow ma ne yàlla kay ba mu baaxee du tey waaye lii. l'observateur ñëw ak ñun ay lettre tàggatoo rek. maître Abdoulaye Wade lettre am ba daal gis nga ko nee na ma dikkee da ko jam. da ko jam paaka. waaw ma dikkee weddi na ko ne du ma sa woor Abdoulaye Wade waaye combaan mii ndeyu mbili gi nag. Mhm. mi signé lettre bi waroon coow li. nee na gis nga lettre bii ñu wax ne Abdoulaye Wade moo ko bind ma dikkee Wade bind ko de. wala ay loxol Karima ne ca ginnaaw. ah du ma am. donc loolu dem jar na ko jar na gëstu. jar na gëstu jar na gëstu ma dikkee ñang tamit ak Ablaye. waaw Ablaye Wade tamit nag. loolu ah. ah, ah, nag démb la. la. soleil yéen a déggal soleil même soleil tey PDS léegi. waaw nga leen tey. ak a mën a buruxlu. ah dafa yii tuuma yi nga xam ne moom lañ too coow li xew ci biir PDS. Ablaye Wade am na lu ko naqar maître ma dikkee ñang weddi na. Mm-hmm. Dakar Times nañu Macky Sall de leen na ko teree nelaw. fu mu nekk réseaux sociaux yi. Facebook beeg WhatsApp bi moo teree nelaw tonton. li mu ciy dégg rëy. ah li mu ci liire rëy waaye yow source a ñëw ngin ci Abdoulaye Ka hmm. maire Touba délégué de quartier bu nekk fukki junni ah pour parrainage wo guerre guerre hmm. guerre kon baax na zoom info ñëw a ngin ci magistrat yi mu jën a ñëw fippu de hmm. nee nañ dañu bëgg ab kër goo xam ni gu moom boppam la ab entité bu indépendante parce que exécutif di pale yii mais ñooñu carrière magistrat yi ci seen loxo seen waaw la ne. bu la neexee rek ñu teg na ah mais loolu kay kon mën naa mën naa influencer nag vraiment ci ci ci kii. te li ko def li euh, cey alay salaahu bi xabil hakimin ngay ñëwati fii ci Zoom info. Mm. maam de direct info ñëw ak ñun ci ARMP. Mm-hmm. seen tool ak ASER. bàyyiwuñ mu sedd ba léegi nii ba léegi direct info. évidence yéen kaay ñëw ak ñun ci blocage moo am ca Saalum ak lu ko wër. Mm-hmm. parrainage. waaw affaire de Malick Gueye la ñu tuumaal ak mouvement bi. ah Malick Gueye mel ni. kii kan la Sadio Mané onze FIFA de l'année Sadio Mané onze FIFA nañu koy won fii ci suñu onze yi. ñuy def fii. ndax ñu ñu man ñii damaa yaakaar ne xanaa dañu leen a yàq laay ñu ne damaa foog ne dañu leen a yàq la waaye seetaan nga mat si beeg Madagascar. man de sa beeg Madagascar laa seetaan mu mu may saf eh, mbotti pom contre ginnaaw raay ji jiital moom moo ñu jigu saa bu ñu jiitalee ñu dàbbuñu nga dàbbuñu ngay lonki muy të ba si nee na ma xoolal man de xaw ma dara ci football mais jouru Madagascar yi comme ay cadet <laughs> ñun ay cadet sax ñu leen a tëj <laughs> ñii daal ay jouru nawetaan lañ may saf stade ba fees dell bii la fa nekkoon gis nga ko Sénégal nag lañ nekkee ñëpp daaw ñëw pour seetaan man de équipe leen war a ndëppal Idrissa Ndiaye mii di ndëpp moom te topp équipe bi mënul leen ndëppal équipe bi. waaw nañ leen mën a ndëppal nag. may seetaan doon kii keroog consultant ya. Mhm. lim ak Cheikh Sidi Ba li mu wax mooy dëgg de. Mhm. nee na bu dee lii la ñu yaakaar pour gagner coupe d'Afrique ca Cameroun ngee. dañ ko yow ma. équipe bee jarul dem. jarul ñuy dem. dañoo sonn ci yaakaar bu tas. kaay yi wax la benn affaire de condition yi leen tegoon ca coupe du monde ba de tonton dootu leen de yaakaaram gi ñu tas ci coupe du monde bi nga xam ne ci la yaakaaree woon pour campagne yaakaaru sénégalais yëpp sax baax na bi non a doy hmm. boo xam ne too ko fa mu ñëw ak keneen beneen xale boo xamante ni ay maamam a sàcc doomam yóbbu gide tamit loolu mooy leneen ci nag tamit xam nga lii tax du may ñëw <laughs> bu subaa boo leen ma gisulee xam leen lii tax ñëwaatuma <laughs> réew mi daal yëngu na ma dikk dikk na man de transhumé naa changé naa léegi parti direct. non da def médiation bi waxtaan la maam waxtaan naa. kan non jël naa grand parti. avant ngeen defal médiation ba mu tëb. parce que man mënatuñu maa téye say. man looy wax ba ma wan la ginnaaw rek say dem naa. léegi maa ngi CP léegi Oumy mooy sama responsable Oumy Dieng. grand parti waaw responsable Aslem Paris ak Ndeye Soumi Seck. boobu xam naa Oumy Dieng mi ngi savouré fu mu nekk wëy amagoo amagoo te. wóor na yàlla am nga. dem na li ma la toogal rek c'est le maire tëjal waaye dem naa daje kon ëllëg ba suba waaye de ba mu joxee ma signé incha allah naa la indi ma problème ci kanam ma dikkaat jukki leen xibaar yi Sen TV. Bienvenue chez vous.